ñu ñëw ñu waxale mu ne dina bind note intérimaire pour au moins ña fa nekk di doxal service bi ñu reconnaître que ne ñii ñoo fi nekk deful ci loolu dara am yeneen service yu am ay gàllankoor ay ay unité yoo xam ne fii la ñu bokk comme scanner ak radiologie mu ne dinaa dinaa jéem a wax dox ba affaire bi mu sotti deful ci dara yeneen comme garage automobile bi nga xam ne euh, chef de garage moo ko war a gérer Linga nga xam ne mooy moom mooy joxuñu ko ko di am chauffeur ñuy ci administration bi am chauffeur yoo aussi dañ leen di jël chef chef de garage bi yu mel noonu li nga condition pour nekkin bi fi bu ñu lek naan depuis deux ans nous ngi wax ci affaire boobu ba dara def lu muy sotti moom jël yëpp mu adjoint bi mu gi mu ne waaw léegi sax boo leen demee gannaaw suba restaurant bi dina tijji loolu aussi dara nekku ci li nga xam ne dañ ko xeex muy euh, ñun ak sunu famille bu ñu feebaree ñu faj ñu bu ñu ñëwee fii ñu teg ñu fi ñu war a teg médecin personnel bi kenn du gis boo feebaree yow ak sa famille fii da ngeen di taxawaalu di rang comme yeneen malade yi loolu du dëgg du yoon mu ne yooyu yëpp dina ko wax dina bind médecin personnel bi mu wax jour fi nekkee yooyu yëpp dara amu ci kon tey dañoo jàpp ne Euh, ñoom administration bi ñoo nekk ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, bañ a jox gëdd li xew bañ ko teg fi nga xam ne foofu la egg parce que mënuñu comprendre ñu dénk la hôpital régional nga xam ne gox bi yëpp fi la ñuy fajoo nga am problème ak say travailleur ubbi sa bët nga xool xam ne lii kat dañ ko war a faj mais nga tëju sa bureau nit ñi ñëw di la wax gauche droite ngay gëm nit ñi ñi nga xam ne ñoom ñooy maladie di continuer nekk ci seeni problème tey loolu moom moo xew parce que bi muy bind naan tey suba ëllëg ak gannaaw ëllëg li ngeen wax dinaa ko def kenn neexalu ko mun na respecter parole li ñu signé mu def ko suba suba ñu dem dellu liggéey comme niñ ko waxante woon. bu fekkee loolu defu ko euh, ñun fa ñu nekkoon démb ak bërki démb fa la ñu nekk du ñu dellu ginnaaw parce que mënuñu continuer. Euh, hôpital bi ñukoy yori ci yenn yorin yi ay yorin ñu eh, yo xamne yi teggu ñuko ci yoon ay service fi nek dañu am dañu wara war am ay kilifa ñi gérer mom mu tek betem, lan mo dox lan mo doxul ak ak yelef travailleur yi dañ ci war tahau, taxaw loolu buñu démé ba yoy yëpp amatul ñun mënu ñu ne di liggéey duñu ay jam ay travailleur lañu dañu am eh, warugar am ak ak yelef ñun tamit sud sas bataille bi local la mais suba au niveau national dañoo décréter 48 heures grève yo xamné ñi garder garde yi rek ñoo avec service minimum lolu aussi lu melni mo xew ci kaw parce que gouvernement bi 2014 dañoo signé ay accord ak ñun accord yoy bataille tamit ñomit it respecté wuñu ci dara biñu défé defee euh, point yoy ne len ay point yi ñu tëgg lii boo ko défé jam am ñomit lolu loolu defuñu ci dara mon mooy euh, euh, contractuel yi ñu war leen fay salaire mon mooy motivation bi ñuy fay heure supplémentaire yi moom recrutement euh, ASC yi yo yi yooyu yëpp defuñu ci dara ak ñi nga xam infirmier sage femme d'état yi nga xam ne dañoo jàngi woon war reclasser technicien supérieur yi tamit ñu reclasser leen yooyu yëpp defuñu ci dara moo tax tamit ci beneen fan bi ñu ngi jàmmaarloo ak gouvernement bi suba dañuy d'or yenen 48 heures le SUDSAS est en grève ici dans cet hôpital depuis pratiquement 26 jours. Donc, euh, tout au début, euh, depuis que nous sommes sortis, l'administration nous a appelés. Après deux jours de négociations, ils ont donné réponse à tous les points. Malheureusement, la suite, ils n'ont rien sorti comme euh, justement matérialisation. Et ce qui fait que toujours, nous sommes là pour manifester notre mécontentement. On le fait pas à travers une grève totale, mais on le fait genre grève de zèle. Tous les matins, nous sommes là, on sort et on manifeste notre mécontentement. Et par conséquent, les services sont paralysés parce que justement, le sursace est majoritaire dans cet hôpital. Vous pouvez faire le tour des services. Il n'y a aucun service aujourd'hui qui fonctionne. C'est malheureux parce que une administration qui se respecte, qui donne sa parole, donc, et qui ne respecte rien en cela, Aujourd'hui, moi, je pense que c'est regrettable, comme vous le constatez. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il y ait plus de gouvernance, une bonne gouvernance. Les services sont mal gouvernés. Il y a des problèmes au laboratoire, un service où il y a, abandon de poste depuis bientôt cinq ans. Au niveau également de, de services d'imagerie où une unité, notamment l'unité de scanner, devait être rattachée donc, à l'imagerie. Pour tout cela, il a donné réponse, il dit qu'il va faire, il a donné des dates, mais rien n'a été respecté. Et ce qui est plus élémentaire par rapport aux conditions de garde, les, camarades, ils passent la garde. Et ils ne mangent pas, la cuisine ne fonctionne pas. Le parc automobile, il y a une mauvaise gestion parce que simplement les prérogatives du chef de garage ont été retirées. Et, pour, euh, pour ce qui a été déjà un acquis, la prise en charge médicale du personnel, aujourd'hui également, ça s'effrite. On ne voit jamais le médecin du personnel. Quand les camarades tombent malades ou leur famille, ils font la queue comme tous les malades. Mais... Et pour tout cela, il dit que ok, c'est bon, je vais le faire, mais rien n'a été fait. Et comme vous le constatez, nous aussi, nous sommes des travailleurs. Si nous sommes mécontents, si ça ne passe plus, on est là, on manifeste notre mécontentement. Et maintenant, il y a des gens aussi qui la lutte ne les concerne pas. la synthèse le, SAMES. Et aujourd'hui, les, responsables de ces syndicats, ils se mettent dans la tasse, ils font de l'intox. Voilà, monsieur le directeur, ces gens-là, ils veulent votre départ. Voilà, monsieur le directeur, etc. Donc, ces gens, la lutte ne les concerne pas encore une fois. Ils n'ont qu'à aller régler leurs problèmes. Nous étions en grève, nous étions en mouvement pour des choses très précises. L'administration a pris ses engagements il n'a qu'à les respecter demain demain on retourne